téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte ak bànneex rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee rek à chaque fois lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb bi maanaam ci bi dañ toog fii ci plateau daal di faram fàcceel leen mais à chaque bu ñaawul bi Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay maa ngi lay fay soxna. ci loo nekk Babacar. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. yaa leer tey da watu wala nu mu demee noonu. <laughs> waaw non c'est normal ah, parce que tamit xam nga leer bi moom moo il ba parce que li yëpp ci xeetu sant yàlla bokk daal waa ci xeetu sant yàlla boobu wax dañuy bëgg rek saa su nekk rek mhm. ñuy sant yàlla doonte yoruñu cent francs tamit mais ñuy sant yàlla rek ci suñu comportement ak suñu habillement te muy dëgg dafay am solo ay ayca Babacar ñu dem daal di seetaan rek revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 1er février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey fa mu xëy ñëw maanaam Eumeu Sène la xëy fësal ci xëtam mu njëkk rëg-rëg ak ka nga xam ne moo di góor a soog bu dee Eumeu seen la moom yëglikaay bi la mu gis mooy dafa mel ni koo xam ne daal fi Eumeu seen di jaar ngir daan Lac de Guiers moo ko xaw a jaaxal ndax daa jàpp ne lag moom bii yoon dafa décidé maanaam décision ferme la jël ci combat ak Eumeu seen moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal Eumeu seen moom combat ba mu jëm moom combat du ko gën a compliqué muy digganteem ak Lac de numéro 2 keneen koo xam ne ni moom bi mu jàpp ne moo fi dàq te moo dàq sax Modou Lo ak Ama Baldé mooy góor a soog ñu ne ko ban la mu ne sama digganteeg Moussa góor a soog daal jàpp na ne su ma bëree ak Moussa Ndoye na boobu combat moom boo ko tëggee ne mooy dàq sax Modou Lo ak Ama Baldé góor daal tey gis-gis boobu la xëy tey am ko wax ko fa nga xam ne ni moom moo di ca sunu làmb keneen koo xam ne ni moom ba tey yëglikaay bi da koo tiital muy ki nga xam ne moom moo di guy gi ci digganteem mag rëg-rëg ndax yëglikaay bi jàpp na ne ci mbirum compétition rëg-rëg moo ko ëppale ñu ne déet ne waay mu ñëwati la nga xam ne nii moom mooy ay privilège mu am ko ca MMA ba nga xam ne commencé na ko di ko def moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day kii di guy gi day heure adversaire bi mu am moom bu redoutable la adversaire la boo xam ne daal bu doy doy waar la sunu làmb xëy tey wax nu lool mel ni ki adversaire am boobu ka ko yore di ab ensemble di layti seen xëy na tey ngar daajoo sunu làmb ñu dalal ko fa la mu xëy xam ne nag ne na ci mois de mars bi maanaam weeru mars wi nu jëm ne na fi mu nekk nii ñu ngi leen cay wax ñetti adversaire yoo xam ne daal gars yi bëgg nañ ñu defante ak ñoom ba tey mu nga foofa nga xam ne moom moo di ca sunu làmb di fa wax moom layti seen leneen loo xam ne nii moom maanaam ca Kaolack la amee muy li nga xam ne ni moom mooy CRC ba ca Kaolack yëglikaay bi nag xëy na tey toppal ñu biir bu bees ba nga xam ne moo fa nekk sunu làmb jàpp na ne am na ca ñoo xam ne ay wàcc bees lañ am ñoo xam ne tamit dañuy door a commencé ci bureau ba nga xam ne nii ñu nga ñu ngi ko fa teg tey muy doxal làmb ja ak ñoo xam ne tamit daal yàgg nañ fa maanaam min nañu mbir ya yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ña nga xam ne nag ay wàcc bees lañ ca mbir ma bokk na ci Mamour Cissé nga xam ne moo di Astou Kanté Mbaye jàll ak Waly Sène yëgli kay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ne ki noonu ñoo xam ne nag moom tàmm nañu mbir ma yàgg caa nekk bokk na ci Abdoulaye Diouf Mame Semou Diouf ak nga xam ne nii moom moo di maam njambaan ma nga xam ne nii mbër la woon laay njombor mel ni ki ñooñ tamit ñu nga ca ñoo xam ne tamit dañuy door a commencé ba tey ca mbir ma yëglikaay bi xëy na limba leen bokk na ci ka nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Mbeng Alassane Alassane ma nga xam ne nii moom moo di Alassane Ndiaye ak ka nga xam ne moom moo di Pape Moussa Sagna yëglikaay bi daal xëy na tey ñëw ci bureau boobu nga xam ne daal moom moo nekk fa nga xam ne moo di ca Kaolack jël place bi raaseen war a doxal lambi Kaolack buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Equivox TV foofa moom ka fa xëy dem moom moo di ka nga xam ne moo di Momo Ngom mooy tëggal rëg-rëg moom nag la mu xëy xam ne daal lenn la ka nga xam ne moo di Abdou Ngom mooy tëggal ka nga xam ne nii moo di guy gi daal la xamal ne ko bu ñu demee ca làmb ja ci wàllum tëgg danaa ko ca dominer te bu nu bëree itam sama mbër moo mën mbëram waaye ñëw na ci wàllum concurrence moom jàpp na ne amul ku muy concurrenceal ci wàllum tëggum làmb ndax nag la mu jàpp mooy ñëy tëgg làmb ay baayam lañu ak ay magam bokk na ca ñoom ña nga xam ne ñoo di ñoom Maodo Faye ak Mor Ngom ak ñu mel ni ki doon ne na bu dee waykat ya tamit amul koo xam ne bu àndeek moom day tëgg wala bu àndul ak moom day tëgg ne na ñëpp lay tëggal moo xam mbayang lum la nday faatu aadama jëli moom moomoo ngoom daal wax bi la xëy tey wax ko waaye man li may wax tey ngeen jàpp ko yéen ñi ñuy topp ci Equivox TV te di seetaan mooy ka nga xam ne nag moo di yàgg maar Demba Gueye taalibi Cheikh Béthio Thioune ba nag ñëw na tey ci groupe Equivox kon yàgg maar lan kay wax mooy ahlan wa sahlan fekk si na ñoom elaas ak ñoom gomis ak ñoom xulleeg ñu mel ne ki noonu ndax yàgg nag lu waaye xamadi xamadi caméra ak montage ak photo moom ay mbiram la te métier la moo tax ma ne waa Aksu waa Equivox boog juumu ngeen gomis gars yi fañ teg seen loxo foofa nooy na nepp ndax nag yàgg maa xamanteeg moom ndax liggéey nañ lu mat ñaari at woon euh, revue des titres yàgg maar ànd bu yàgg bi dëgg la loolu la woykat bu mag bi wax. Youssou Ndour waaw yow yàgg maar fee ba Vox Arena ak Vox TV. waaw waaw ba wax dëgg yàlla ñu nga woon ca Leewtoo maa ngi moom. Mhm. fa lañ daan liggéeyee maa ngi moom def fa presque ñaari at daan ànd di liggéey muy nit boo xam ne wax dëgg yàlla ni ko xamee ni ci simplicité. Mhm. maandute ak nekk taalibi Serigne Touba. Mhm. jaarale ko Cheikh Béthio Thioune ci loolu rek laa ko mës a xam fonk liggéey lool néew ay wax trop wax dëgg yàlla tey bu mu ñëwee fekk si waat ma biir Equivox mhm. dama naan alhamdulilahi rabbil alamin parce que li olof di wax rek yokku ku yokku cere dolli ñeex daal te defe naa kon waa groupe Equivox ñu mhm. ma ciy remercier ku mel ne Aline Badara Diouf la DC mhm. waaye ki nga xam ne nag moom mooy bu ñu ne Equivox moom moo tax ñu koy wax muy hélas moom tamit maa ko ciy remercier parce que yooyu yëpp ci seen ay démarches la ak seen ay kii waaye tamit ki nga xam ne moom mooy kilifa gu mag a mag gi nga xam ne nag moo làqatu te moom nga xam ne moom euh, kii nan laa ko tuddee waaw l'incontournable laa ko tuddee yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que itam ki mu indi daal juumul daal Youssou Ndour waxoon Aziz daal waa boroom kër gi daal jumul ci yàgg maa yal na ànd bi gën a dëgër yàgg kon nag dalal jàmm kër gaa ngi noonu sa kër la am na solo voilà Babacar bu ñu jógee foofu rek ñu daal di euh, ñëw ak ñoom ci bu njëkk bi suñu làmb daal di ñëw ci euh, ki nga xam ne moo di lag de Guiers volonté bi nga xam ne am na ko ngir rek euh, vaincre ki nga xam ne moo di Eumeu seen ëpp ëpp boo xam ne dina doon combat bu compliqué entre ñoom ñaar. waaw ëpp <laughs> loolu daal xam naa ne. combat la parce day gëm boppam. waaw ba ba mujj diis daal. waaw ba ba mbir yi nekk lu métti ci moom waaw parce loolu li ko indi lenn la rek seen combat moo toll foofu parce que li tax seen combat toll foofu mooy Lac de Guiers 2 ku ne xam ne dafa bëri Eumeu Sène deux fois mm-hmm. benn bi ñu mat si niin te Lac boobu la am ci làmb bu dul boobu beneen mbër daanu ko kon tey bu jëmaatee ak moom si combat muy troisième combat defe naa ne lépp lu mu am ci ambition pour daan Eumeu Sène du parce que Lac de Guiers dañ ne la muy mbër mi gën a jafee daan Sénégal te kon benn defet boobu mu am nag bëgg na tey kay ko tegoon bu yàlla defaatee buntu ñu war a bëre ñoom ñaar defe naa ne ah euh, ak ci combat bi fonk ko ak dogu si dogu defe naa képp koo xam ne ni rek xam nga làmb wala xam fi ñu jaar ñoom ñaar loolu du la war a mën a bet muy combat boo xam ne comme ni ko yëglikaay bi waxee compliqué na ci Eumeu Sène mais dama naan si ñoom ñaar ñëpp lay compliqué ah. parce que ku ci ne dafa am loo bëgg am foo bëgg a dem Eumeu itam am ci lu mu jógee kon combat boo xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla fekk ko te tal voilà Babacar combat royal Modou Lo ak Ama nekk combat bu rëy. Mhm. ki nga xam ne nag moo di a Sock euh, daal di génn xam le ne rek combat ak euh, Moussa Ndoye nekk na combat boo xam ne sax mën na gën a rëy sax combat Modou Lo ak Ama Balde. waaw olof na ne ko raaj jëmale sa kanam mu dëll la waaw loolu la wax waaye Modou Ama moom coow nañ ko ba bàyyi ba fi mu ne nii coow laa ngay continuer moom tamit diggante mu Moussa Ndoye ju neex la war na mën a neex loolu moom kenn du ko weddi parce que ñaari xale lañ yoo xam ne nii ñu ngi ci seenu yoon di dem def naa ku leen booy itam am combat jànq bu neex a neex a neex ndax góora ku ne xam na ne dafa mujjee ci defet digganteem ak Tyson 2 Moussa Ndoye mujjee ci defet digganteem ak ki nga ne nii moom moo di Garga Mbossé kon defe naa ñoom ñaar ñëpp ku ci ne ci defet nga jóge boo leen boole woon tey kan muy bëgg a daanuwaat loolooy coow li waaye yaakaar naa daal su ma nee ne combat dàqu combat bu neex la waaye Modou Ama nag moom ah loolu combat au la loolu vraiment combat royal la day doy waar <laughs> dafay ñu ñëw ci euh, ki nga xam ne moo di Reug Reug digganteem ak Gouye gi ñu gis Reug Reug fi mu toll nii actuellement ci MMA bi mhm. Reug Reug day dóor day mbott ca xabal di weq di weq dina metti combat boobu <laughs> waaw xam naa daal comme ni ko sunu làmb gisee tey ci mm-hmm. compétition moom mu ëpp compétition Gouye Gui loolu moom am na mm-hmm. ndax boo xoolee moom mu mujj bëree ci làmb ak ci ay tournoi mbapat ak yu mel ni kii noonu guy gi su ma jumul ci Siteu la mujj bëree bi ñu koy daan digg voilà diggante bi rëg-rëg bëriwaat na fi ay combat ba daan fi Gris 2 mm-hmm. ba pratiqué fi ay combat MMA ñaari combat MMA loolu boo ko boolee nag ak tey e, ci combat yi mu jëmaat ni moo lay wan ne kon moom mu ëpp compétition waaye nag loolu lépp li ko waral rek mooy xëy na bëgg na moom nekk quelqu'un ci li nga xam ne ci la nekk tey muy làmb wala muy MMA mm-hmm. guy gi tamit boo xam ne nii gëj a bëreem ak ñàkk gëj a bëreem mm-hmm. doo ci compté ba war nga ko mën a daan ci yoon parce que mbër réew moo xam ne ni bu caaxaane bés loolu mooy comme muy combat boo xam ne bu nar a metti lay doon ci seen diggante moom maanaam ku ko ci yombal kenn ki rek su ko ñàkkee yaa ko ko xañ waaye Reug Reug daal fi mu nekk nii itam fi mu nekk soxla nañu compétiteur di nekk ci condition bu mel noonu maanaam tout le temps yaa sa xel a ngi ne yaa ngi am bés di waajal di entraîner parce que boo nekkee ci combat da ngay gën a nekk ci sa bopp mm-hmm. muy la solo kon daal bu ñu jàppee Reug Reug fi mu nekk nii dafay nafar moom tout temps mi ngi nafar. ah parce que moom mu sum ay sum boo dëkkee di nafar bu yàggee nga dem bala ngay nafar <laughs> euh, ki nga xam ne rek moo di Layti Sène di bu Reug Reug ne xam leen ne proposé nañ leen trois euh, combats ci mars mhm. ne kon li ñu doon wax rek li sunu làmb wax tey rek. Mhm. maanaam compétition moom fi mu nekk nii macha allah mhm. am na ko te mu ngi ci waaw maanaam loolu moo lay war ne daal kon ah combat yi ñun proposé tamit layti moom defe naa ne du ngaaka ci mbir mi te itam agent bu mat agent la par rapport ni ñu gis muy doxale kon yaakaar naa loolu ñu leen proposé bu fekkante ne ñoom jàngat nañ ko ba xam ne lu baax la war nañ ko mën a signé parce que rëg-rëg moom fi mu nekk nii pour man loolu mooy liggéeyam te ci la nekk muy MMA bi muy làmb ji dëgg la dem fële ca Kaolack CRG ba ginnaaw rek ñeneen ñu bees mu am na ñoo xam ne dugg nañ ñi nekk ñu bees ñi nekk ay a waa li mu ci mën a wax daal mooy yaakaar naa ne ñoom ñoo ñu fal tey ah ñi ci nekk ay débutant ah, wala ay wàcc bees yàlla leen yàlla dimbali ba ñu jéema def la tax ñu teg leen fa am na ñoo xam ne nag ay habitué nañ maanaam yàgg nañ fa maanaam daan nañ ko def muy ñoom maam njambaan ak ay laay njomb nga xam pratiqué nañ làmb ñooñu defe naa tey bu ñu leen jëlee ak président ba leen boo leen dénk leen làmbu Kaolack defe naa ne ah la ñuy xaar ñoom rek mooy ñu def fa lu raw li Bira Sène defoon mm-hmm. te am nañ si yàqin parce que tamit ñoom ñi ko seq pour man xam nañu làmb wala am na ci ñoo xam ne ñun xam nañ ñu xam làmb mm-hmm. kon teg mm-hmm. waaw te muy dëgg ba tey rek euh, ñu euh, des ci euh, làmb yooyu noonu ki nga xam ne moo di rëg-rëg géwalam di Momo ngoom guy gi géwalam di Abdou Ngom ñoom ñaar nekk ay tëgg kat nag yoo xam ne kenn dootu leen laam-laamee ku nekk mu ngay pare sa boor Momo Ngom moom xam na ne fi mu nekk nii la mu denc buñ tëggaatee combat bi ko génnewee foofu du yomb Babacar. waaw moom moo de moo wax moo défier Abdou Ngom. ci mhm. Equivox TV ci Equivox TV. waaw la mu xam ne daal de buñ ca yeggee moom moo gën a doon xale te xam na ne tëgg ba moom nee na Abdou Ngom xam na. waaw loolu nag moo lay wan ne fi mu nekk nii dañoo toll ci bataille psychologique wala bataille bataille de communication bi mhm. maanaam ci lañ toll maanaam waxante buñ ci tolloo nag. ku ne am nga droit wax moom moom xam naa la lay xam naa daal seen diggante du yomb moom ma yàlla nañu fi yàlla bàyyi xam naa moom moom nga moom xale la macha allah mën naa tëgg waaye Abdou Ngom li ma gis mu mujj ko tuggal tëggal guy fii ci euh, Léopold Senghor mm-hmm. ah kera ña fa nekkoon ñëpp yëngatu nañu waaw Abdou Ngom far du ma du ma koy déglu bëri mais Momo Ngom dama dëkk ak moom man dama ko xam xale bi loxo bi dafa tàng dafay dem. moom xam nga ko nag xam <laughs> naa ne bokkoon ngeen école ca Gaye bokkoon nañu école Momo bokkoon nañu école xamal lu ma la waxul. ah waa xale boo xam ne daal macha allah. il est macha allah ñoom ñaar ay ndaanaan ñoom ñaar ñëpp. ay ay moom xale bu am mën na tëgg lool. Mhm. te itam gis naa ne jege na mbërëm te mbër mi ngay tëggal jege ko tamit dafay am solo parce que day tax à tout rek mhm. tegu bi day gën a day gën a ratax waaw te loolu defe naa ne mooy lam ndax kere bi mu koy jël kër rëg-rëg laa ko fekk mhm. parce que la plupart bu nee Dakar kër rëg-rëg lay nekk ba war a demaat ngay jaay dem fa loolu tamit defe naa complicité bu am sens la leen di ñaanal yàlla rek mhm. yàlla sàmmal leen loolu daal ba tey diggante boobu compétition amu ci ndax kii di Momo Ngom xamle na ne moom bu compétition di am papaam lay compétiral mais du kenn ko xam ne rek nekk na tëggkat ci làmb bu muy compétir ak yow parce que ñoom ñëpp da leen jàppee ay papa ñi ay nijaay waaw maanaam mooy tey ñoom Maodo Faye ay ñoom Mor Ngom ak ñooñu mm-hmm. <laughs> te defe naa ñooñu ay kilifaam lañu te moom à tout soo ko dékkee micro loolu lay wax maanaam du ñu ay concurrent mm-hmm. loolu nag mooy am nit sax laay wax da ngay am humilité ci loo mën di def lu mu mënta doon da nga cee même buñ la nee mën nga ko jàppal na yow da ngay jàng rek pour mu la ciy génne moom loolu la gis loolu tamit defe naa lu rafet la parce que ñoo xam ne ñoo sa papa ñu doon ànd di tëggandoo ba sa papa xëy tey tëggatul ñoom ku ci ne ber daaraam di tëgg defe naa ñooñu du ñu sa ay morom say waaye nag garab ci kaw lañ fekkante mm-hmm. waaye lépp dafa war a rafet rek comme noonu mu ko waxee ah yaakaar naa daal lu am am solo la daal dëgg la waaw Babacar fii la ñuy yem ak ñoom ci xibaar yi waaye Babacar tey ku la sañsel waaw tey de maa solo sama bopp moom yaa sa bopp waaw tey lii maa ko solo sama bokk te ku ci bëgg tamit maa koy jaay tamit nag yaa ngi na de waaw macha allah est ko solo ah bien sûr ah waaw war naa cee mën a kay bu bëggee man dama koy jaay rek. te seerul waaw da ciy baax dañ la macha allah. loolu la baax lan ngay tàggatoo. xanaa sant ak gërëm rek ñaan yàlla jàmm nekk Sénégal nekk si àddina bi yëpp corona bi dem xam nga yàlla defal ñu jàmm. yéen ñi nga xam ne ay célibataire ngeen yàlla leen yàlla may ay buroomi kër ak ay soxna parce que tamit teel a sëy yàqul doomu aadama nañu fexe di teel a takkante waaye itam nekk fii di tànn rek di tànn góor bu ñëwee nga ne non tànk daa yooyu tamit wóorul bu yàggee fa ngay mujjee mooy dama am faro rab te ñu bëree ngi naan faro rab boo sàgganee daraay rab jege ñu leen ñoom ñooy seen faro rabu bopp yéen góor yi tamit nañu def effort

Boy bi saf na kii ah waay attention Jackson Dado